Naboulaye Naboulaye bu dee lee dee Aziz Dabala gii ak Waly gii sa tura a ngi ci biir te muy dëgg kon yow ma xam ne Naboulaye ah yow sa dund dootul neex yow xanaa xamal ne buñ la bàyyi woon sax yow dangay dajeeg nit ci mbedd mi sax mu def la loo xam parce que fi nga jaar ak Aziz la yéen da ngeen a jaar ci bi muy metti ku la xool démb xool la tey xam ne yàgg ngeen lii de bu dee yaa ca biir yow sa dundu dotul neexati yak nga sa dundu fami, yak nga deru jigen ci dekk bi deru jigen dotul jarati dara ci dekk bi parce que li tax jigen day yaay jigen wara soutenir jigen bot jigen nampal jigen jur gor ñi jigen wara tete gor góor ñi jigéen war a mottali góor jigéen taxaw def li yow rek lañuy tuddu duñu tuddu ñe ndax amna ñum doon demé bu dee la nga kon yow boko ko mu defaru waaye nak li ku ne ku ne gàllaaj amul nax nga sa bopp ak am xanaa xamal ni nit ki foo sangoo war ngaa lenqaliku lenqaliku dafa am lenqaliku mooy lan réew mi fi mu toll la te jamono dafa doyaat te lii du fen ki koy waxay fen seexu yàlla bi boo ko woowee lii jàngaatuwu ko te manaatu manaatuwu ko làmbaatuwu ko lu leer nañ la la ci wax lu mel ni mi loo xam dala naan bindal denc lii du fen ki koy waxee di te lii benn bu ci na day wax benn bu ci na day wax ku ñu wax nag say sarax yu leer nga def ko na ko war a defee def la nga war a def takk la nga war a def ñu jox la gàllaaj dëgg nga takk ko dama ni di mucc ndax yàlla moo ni maa fi wàcc ñaan te yàlla dani wal hadd karab naa bànni aadama kon suñu borom lu bind doomu aadamaa ko ci gënal kon yàlla moo fi wàcc ñaan te legatu kese gii naxuti bëy kon ku ni sëriñ amul dalaa jàppul dëgg la dëgg la ku ne sëriñ amul rek la jappul kon bu len ne amut amna dem len ci ñi wax lu leer ñi def lu leer man nak duma ni maka man sama nitama ma koy waxal ndax ñaar fukki at ak ñaar 22 ans du ben at te kenn musta taxaw ni ma amna am sax ku fi ñew ben site internet bu fi ñew naa ma meer li la jaaxal lima ma ci yow dañ la musta duggal ba ñepp duggal nañ len vaar bam dess yow man ko ah yow nga ñew pour duggal ma vaar man duma dugg ci luma ma te li dama ko man tek ci sama loxo duma wax luma manu, duma def luma xamu fuma la joxon sama baram ni la fofu la fofu la waji dafa jog daw dem ni ma lo wax ni mer deug la de man seddu na ken musul la dugal war lutax ñu dina dugal war kuy dugg ci lo xamul di lambatu di lire lire di yar yar koku lañu dugal war waye ki ceddo la doon seex yalla jël seexam lumuy wax da koy xam lumuy def da koy xam tay defet la bañ woma so ma woowee ma wax la sa tour la soxla sa tour yaay man maay seetkat bi nga xam barki dem wa bitim rew ma kay wax ah soxla suba de la la ko meuna man la am problème man kuma setal ding ma fay nga ma soxla si yaay ni ma deug man la man kuma setal ding ma fay duma dugal nit ci internet nan ki la kuma setal ding ma fay ndax limay def do fen ki koy wax fen te li benn bu ci na day wax eh li bopp jigéen bu jaaxle la na yaramam bu diis te yuuxu dina jëm fuñ ko foogee wax naa ko barki démb ma xanaa damay doo a génn rek waaye barki démb rek wax naa leen ko ne woon naa leen yuuxu dina jëmee fi foot eh, fuñ ko foogewul ki fi ñëwoon di ma ku jigéen ki ñu wax bokk ci ma ne ko ku jigéen ki dina ci laale waaye de yow man de bala maa gëm ni laale nga ci bis ma gën a xamal ni jigéen moom soppal te gu ñuy wóolu eh, soppal te bul wóolu gi ñuy wax ak yi tey di nga yàq sa wayu doom tey di nga yàq wayu jigéen koñ bëgg a dëkk nit ñi nag maa ngi dégg ñu naa pikin pikin pikin mais xool leen Pape Diouf sama rakk ju yaru ju baax ji nga xam ni ñoo dëkk fii ci Ouest Foire muy ku baax eh pikin man man falaa am ay xarit ñu gore Fatou Gueye nga ca kii ba mairie ba law ba ma xama nga fa doon ñu baax tàmm liggéey nit ñu baax a nga fa waaye bu leen jël yëf yi rek ni pikin pikin gis nga ñooñu dañoo def def seen def nag bopp ba pare Aziz tamit entourage am nax ta man duma ni dalena leen xam de dañ ko nax dañ ko war waye nak ko war nit ren ba dewel wala nga nax nit ren ba dewel da nga ni fa ngay teud dina sedd gis nga fa ni teud bo boo ki sax assis se len gëna sedd le setu ndox amna ño xam dañ ma nan setu ndox bu de yow mi nek bitim rew man en general sax malay setal dama la koy xolal ci ndox bi parce que ki sori rawanam day sori te yeen xana xamal bitim rew goog ngeen ne fa la jinne uppe fa la rap uppe fa la saytane uppe te ki ne ci dëkk bi boo toogee sax man naa laa xoolal ci pitaayu sa lépp sa ci gerte yi lépp mën naa koo gis mais ki ne bitim réew dangaa sori sa rawaan sori te foog ma xëcc rawaan bi rawaan boobu nag li koy xëcc leget gi ci la bokk moo tax leget mën leen cosaan la leget bu leen ko caaxaane leget nañ ci sawu ci gàllaaj ji leget nañ ñi am mbir ci ciy def xanaa xamul leen li ci leget yëpp secret leget yu garaaw a ngi ci béjjën bii ma jël ko ak ndox mi joxoñ ndox mi xamal bejjel bi kérok keroog am na mbër muy beure bejjel bi mo wax ni mu démé ma xey wo ka nga xam ma nga won ak mbeur ma dama xey ni koku ma ngi yobbu sarax ji ca daara ja mbir mi leer na carte gi leer na mais dina gañ ci muy beurel ta dama ko xey na la amé bejjel bi mo ma ko wax ak legetu ndox ni ku ni seetu ndox amul bo soré rawan bi day sori te ba ngay tuti ndox ga tim kon il faut koku dang koy seetal ci ndox sa tour la soxla sa turu yaay wol seexu yalla bi budé yow mi fi néna xott gerté yi man na la ci wax lepp mais seetu ndox gi bu leen di amul ndox leer na ndax ndox sax lu bari dina ko wane secret seetu ndox a ngi ci biir lu bari lu nit xamul ñu ne fii sax maa ngi leen ke moo tax ndox ndox yemut ak lenn parce que ndox mën na laa wan fi rawaane nit ki ne te gis nga nit ki ba nit ki amul rawaan am na seetkat yu bari dañuy tëb naa la ci ndox la ne ci ndox la ne eh di nga sëy nit sax te fekk seeni rawaan ànd mu rëbëjoo nit bu nekkee rawaanu ngelaw dafa am rawaanu safara dafa am rawaanu gaaw a mer dafa am rawaanu ndox am rawaanu ndox nag foo ko fekk mooy ki nga xam ne lu muy yaakaar day tas day sonn ci nit te du sonn ci moom waaye bu defee li mu war a def gàcceem kenn du ci teg bët koo koy borom rawaanu ndox yi borom rawaanu ndox li tax léeg-léeg ngay jekki-jekki yor sa oto mu ni karas fekk cat ya ak pexe doomu aadama liggéey la jàpp la yombul de waaye dafa am loo xam ne il faut ngeen def ko muy lan cat ku mucc ci bët ak ràmme ngeen xanaa xamal ne cat raw liggéey rabit dafa am ku ne amul xamoo li ngay wax ndax rab dina la yakal ba nga wara sax do ëmb gis nga rab di nga jekki-jekki mer mu duggal la ci lo xamé def nga lo xamé yow dang koy def ba paré di ko rëcc fekk rab pa mo la jege motax faj leen seen doom ta faju ta defar seen doomi ta defar seeni bopp te bañ rab amna de amna am ngelaw amna ngelaw amna parce que leg leg da ngay gis ko xam sax day teud guddi du nelaw di peuter di bitër ñi ko fekk rawan baa nek sa kaw nañoo xam ne lu ñu gis ko man nak ci sar yoy la suma nexé duma ko tim soo ma waxee sa tour ak sa tour nday ma tifli ko fii ko ci sama nopp bi teg ko ci béjjën bi bu amé 10 minutes ma wax la lepp lepp lepp lepp wax la li nga jànkonteel wax la li nga jànkonteel ku ni sëriñ amul la jàppul waaye du ñepp la japp waye nak buñ la ni liggéey la japp la yomb rek nga ni duma ñaanlu ndax man kenn duma liggéey ya réré mbir yow xana xamane ne taraw liggéey xanaa xama ne rawaan la raw liggey rawal bu la mere defo li nga wara def yaa ngi indi problème bi yow boo moytu ki ñuy liggey sax bu bu ndayam liggey xala xam nday day daje kul ko dimbali day day mani réew mi bàyyi sa bop da fe jeex parce que dekk bi ci bopam fi la tollu te dekk bi moko laaj yeen ñu tukki gën leena defar seen bop gën a defar seen togaay ba nga xamne xala xanaa xam ne Modou Modou dëgg sax warna mat 6 mois yu ne mu taxaw ci dekkam waaye naan sëriñ si bari na xaw ma fa boobu yéen da ngeen a xamul sëriñ dëgg rek da ngeen a gisul sëriñ dëgg moo tax xamu leen fi ngeen teg seen daa bu ñu waxee ngeen naan sëriñ daa bari sëriñ daa bari kii da lay wax lee kii da lay wax lee lu tax xoloo ma dëgg du rombi nopp te ku dégg dëgg ni dëgg ngii liñ lay wax bu dee dëgg xam nga bu dul dëgg xam nga te maa ngi dégg ñu bari ñu naan boo mënee seet doo mën a def yéen def ngeen erreur xanaa xamoon ni ki la seetal xam sa rawaan xam sa sarax kookoo mën a xam fi mu lay jaar ba defal la lim lay defal bu leen réeree mbir waay seexu yàlla baa ngi ku mënta xam sa sarax xamoo rawaanu nit ki mënoo koo defal loo lu mu xam waaye seetu jaxasoo seetu rëbëjoo ba pare naan la ñëwal boo ñee ma defal la lii eh, ku la mënta xool ba gis ta du xam fi lay jaar Abonnez-vous, ciao le Sénégal Abonnez-vous, ciao le Sénégal